bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikhul Xadim gépp di ñaanal sëriñ Abo Baraka nag ci ndigalu sëriñ Jiili mii moo nu ko waxoon fii day leen ñaanal sëriñ aboom sëñ Fàllu mu yàgg fi te wér ak njabootu sëñ Fàllu gépp waaye ñuy ñaanal njabootu sëriñ Modou Bousso Dieng gépp yàlla yàggal leen fi te wéral leen yàggal ko fi moom mii te wéral ko sëñ Jili waxal yàlla naa fi yàgg te wér mun moo a gënal. ñun ñun ñëpp yàlla na fi yàgg te wér. ñun yàlla na fi yàgg te wér. mi yàlla na fi yàgg te wér na ko ñëpp wax mooy suñu ndimbal de ab jaam nag ab sang wërsëgam la ñun sëñ Jili mi sunu wërsëg la di ñaanal njabootu sëñ Modou Bousso Dieng gépp sëñ bi di la ndokkeel bu baax ci coono yu bari yi nga jànkonteel ak taxawaay bu rafet bii nga xam ne danga koo taxaw ci suñ kanam te yàgg koo taxawee te saa soo ko taxawee muy suñu xol bu sedd guy ñu ñaan yàlla mu boole la ci ñi mu gërëm ñu ñaan yàlla mu boole la ci ñi mu wéral ñu ñaan yàlla mu boole ñi mu guddal seeni fan loo dund nag doyuñu foo tollit ci lislaam doyunu noo tollit doyunu foo eggi doyunu fu jaam di toll di ko toll fa yàlla yàlla na nga toll fa romb foofa foofu jaam di egg te egg fa ca yàlla yàlla na nga egg fa romb foofa yàlla bu la kenn ëppale ngërëmul sëñ Touba yàlla na nga bokk ci sët yi sëñ Touba gën a gërëm barke Serigne Touba yàlla na nga bokk ci sët yi Serigne Touba gën a gërëm lama la waxoon nag laa lay waxaat donante na nag ñun càllalaanu boole ak yow deret moonu boole ak yow ndax su suñuy maam la woon ak sa maam su suñuy waajur la woon ak sa waajur waaye ñun ñii la ak yow mii waaye ba léegi amuñu ci lenn lu nu naqari amuñ ci lu ñuy xeeb amuñ lu ñuy xebet kon Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér mbooloo mi ñoo àndandoo seen liggéey bii di ko defee nan ko daan defee waaye tey am na ci lu yokk loo xam ne dañ la jaa tàgguwut waaye ñoo ngi koy jéggulu ñi nga xam ne dañoo bokkoon ànd ak ñoom liggéey bii te suñu borom dogal ñu jiitu muy sunu maam ya ko commencé woon ànd ak sëñ Fallou ñoom ñi tey ji dañoo xëyoon doon leen ñaanal ca kër gee wàcce na leen fa ab kaamil ak la ca war a topp dañ ñaan yàlla suñu borom mu waaw waaw xëy nañ ko def tey suba ña ko génnut waa daayira bi waa daayira baa dikk kenn raxu leen ñu def ko def ko ni nga xamante ne bii ne mooy nan yaakaare na gën naa sell ñu defee ko noona kon ñii sañ Modou sañ Jili waaw yaay sëñ Modou de ñii ñu bari ñëwuñu tey am nan yett nag yu leen gàllankoor wéeri di nan amunu mënunu wéeri di amunu mënunu te ñoo ngi nii te bir nañu ni te itam ne yàlla suñu borom mi la bind ñun am nañ yaakaar bu baax ci ne yaakaar yi ñii mën naa saafaroo fii ak koo xamante ne bii ne sax dañu fay jóge daje ak moom ñuy ñaan ci yàlla mu def ci yow ñun bu jógee ci yow ku nu dajal sax yàlla na kooko aajaam saafaro mboolem ñi nga xam ne bii na ñoo teewee jotaay bii seenu njàmbaar rek ak seenu ñax ak seenu taxawaay wallaay la asim moom lan andi fii lu ne andi na ko soxna asugey mais moo fi andi le nee na da koy da koy da koy da koy da koy terale bis bi nee na nga ñaanal ko ci nag mu doon ay bërigo jëlee la naa ñu doon ñu ne woon dañuy cotiser par ñaar téeméer ñaar téeméer waaye ñoom dañuy jaayante sax lu ëpp lool te daayira bii daanaa la yàgg wax ne la daayira bii jigéen ñee ko yor ñu ngi nii lu ñuy xalaat lu ñuy nas lu mën doon lu ne dañuy ànd ak ñoom ci loolu ñuy joxe seeni i xalaat ñu nawloo seen i xalaat doyloo seen i xalaat ñu ànd ak ñoom ci loolu ba suñu borom dogal lii am lii nag lu nu xeeb la dañoo bëggoon màggalu Kazu Rajab gépp ñun ñu boole ñu ñu doon ñu leen di joxub laax loolu rek lañ bëgg Mbàkke ndax yaa ma waxoon fii ne ma gan gi nga xam ne dafa jóge ci feneen furu Tuubaa gii dikk fanaan si ci dëkk bi moo xam une heure la wala deux heures de matin bu yeewoo ku ko joxob laax day dana la sant dana la gërëm yaa ma ko waxoon kon Mbàkke Balla ñoo ngi lay sant te di la gërëm tey ñaan nga yàgg fi loolu te wér ak ñii nga xam ne bii ne moom mooy ko ko ànd ak yow yal na yàlla suñu borom seen i fan seen i ñu ànd ak yow liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii saa su suñ Sëriñ gestoo gërëm la waaye saa su gestuwaate yal na daj ñoom gërëm leen ñun ñii saa su gestoo gërëm la yal na daj wàllu bëtu gestu ñun ñi gërëm nu nag sunu ngërëm sàkkuwun ko ci kenn ku du yow mii yow rek la na yow rek lan doyloo yow rek lan xam xamuñu kenn ku fii rek lan gëm dama wax ne la ñun suñu daayira bii wallaay la asim xeebu na lool waaye nag ñi ko jàpp gëm nañ ko ba jàpp na mooy liggéey bi leen Serigne di liggéey loo ci waar ñun loolu la ñu gëm loolu la ñu jàpp di gërëm nag suñu jëwriñ ji ndax danoo noppal mm. noppal gi mu noppal mooy keroog ba nga ko kanam ba suñu yoon yàlla tey jii moom lu wax rek mooy dane lu ngeen def rek baax na man li sëñ bi digaloon ci yéen mooy na booloo mi dégg ngeen sawru mii li ko suñ suñ jili mii waxoon saa su ne mu ko nettali na ngeen ni booloo doon benn bu seen dara di tàqale ko kon waxta si moo bi abdoulaye jamen wala tafaraxoo loolu yaakaar naa kon buum googu bu nu ci bokkee jàpp ñun ñëpp kon saaw dana mën a bañ a am kon réer mën naa ba a am ruur mën naa bañ a am waaye nag dañuy dimbale sàmm bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi sant bu baax te eh, ndax li aaj bu ñu fajoon de maanaam aaj bu ñu dugg fa aaj bu ñu fajoon de fa borom sëñ ah, waaw na kon waaw kon ñaan ci barkeem noo ñaan ci barkeem mm-hmm. aaj yëpp fayu bi mm-hmm. at borom mm-hmm. ah, bi attanoo ko ko waaw am na ah. xam ne jàng kaamel ku leen ko jox suñu moom na ko fay ndax mi mel ne joxe joxe ku ñëw nga jox ko bu lekk ba rek moo tabax moo tabax ñu ak bëndu te loolu la ñu ñop ak ak ak ak màgg loolu dina am te incha allah kon nag ñoo ngi sant gërëm ñaan jigéen ñi itam mm-hmm. yaa defee leen njaboot bu barkeel mm-hmm. def si njaboot ndax seen mur jigéen jigéen njaboot mu la am mm-hmm. yàlla na yàlla barkeel njaboot bu barkeel sant di gërëm na te dañoo mu jot kon sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa ginnaaw bi mu nuyoo mboolem mbokk yi fi daje yëpp muy ñu bokk ci daayira bi ñu sopp daayira bi ñi nga xam ne dañoo teewee jotaay bi ñëpp mu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala borom ëtt bii saafara yi mu daan faj ci ëtt bii di teqale ci ëtt bi nee na yooyu yëpp lu fi waaye indi tamit jàngoro lu fi waaye indi tamit jafe-jafe ak jàngoro ju fi mën waaye mën di indi nee na nanga ko fas ci ëtt bii ndax nee na ëtt bii mën na lu ne borom bis bi ñu koy defal it mën na lu ne kenn ku nekk xam nga sa diggante ak sëñ Fall nee na ki ne dafa jóge ci àll ba itam dikk fanante ci biir kër gii te ndékkee nga xëy suba jox ko blaaxit nee na kookee noonu kat nee na kenn nu a teem suñu borom fay la nee na kon ki nga xamante ne bii ne moom dafa nekk yee ci jàng fa nay jànge fa nay jànge alxuraan te ñoom ndékkee gun ñi fanaan ci woon te ndékkeegun nee na ku leen jox laax bi kat yàlla dina la fay kon sëñ bi nee na na ngeen xam ne yéen ngeen di ko dimbale ndax mënut a tàqalikoog yéen dan koo boole ak yéen te bu sañeen ngeen bokk ci ñi nga xam ne bii ne mooy ñi ko gënal mooy nekk ci loo xamante ne bii ne lu dul lu suñu borom gërëm du leen fekk ca loolee noonee kon sëñ baa ngi leen sant mi ngi leen di gërëm mi ngi ñaan yàlla nag fépp foo xam ne bii ne ab taalibe dafay egg ci digganteem ak Sëriñ Tuuba nee na foofee yàlla na ngeen egg fu gën a kawe foofee noonee wax gi nag dana manqué ndax man waaye sëñ moom mat na man na kon nag ci matam gi ak manam gii yàlla nañ ci dugal ba saal munu manquéte yi yàlla nañu ma sëkk yàlla nañu bokk ci ñi nga xam ne suñu borom daf leen a matal wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na kon eh, sëñ Modou waxoon na waaw lu lu lu nay tàng-tàng dañ koy seen rek nee na sëñ Modou waxoon na ne lu naaj bi tàng tàng tàng dañ koy seen kon nan rafet njot ta dalal xel yi waa waa waa kër sëñ Tuubaa dañ koy seen koy seen rek rawatina waa Kër Fall. nag waa Kër Serigne Fall. wax lu naaj wi tàng tàng. nee na lu naaj wi tàng tàng. faw yéen ngi ci ker yéen. nee na faw ñu yéen ñu kereel la. faw faw yéen ngi ci ker rek. nee na faw ñoo ngi ci ker. kon nag kon yàlla dund ci loolu. yàlla na dund ci loolu noonu. yàlla na ñoo ngi naan tas rek. nee na ñu tasewaat fi déwén rek. ay ay déwén ay déwén. ay déwén i déwén ay déwén i déwén. kon ngeen jël def ko na ngeen kaan def rek. jërëjëf amiin amiin ñu nangu ñaan. lu waaye bëgg na ko fas amin ya rabbal alamin amin ya rabbal amin ya rabbal amin